ah jàppale nga ma ci sama màggal gi donc ñu ngi conseillé waat chauffeur yi aussi tamit daw ndànk dal ndànk euh, tey nag ñu dalal Pawlish nekk sunu sunu frère aussi euh, ci kër gi ah Pawlish ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. li ngay ma dégg ma da ngay wax ci kaw ma dégg li ngay wax ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. tey ci yu ñaaw guy gi salaamaaleykum nag maa ngi nuyu Sénégalais yëpp di nuy ñi may seetaan di nuyu képp ki ma bëgg ak ki may sago ak ki may ndam di nuyu sunu borom. dama ko gëj a nuyu te il mu nuyu ko muy laaw kun fa yàkkun jabaaru yaa jibiru yaa xamiru yaa yàllaaw nit ku ne da ngay am ko ku la def ni da koy da koy bàyyi xel di ko nuyu. Mhm. di delloo njukkal sunu borom mi ma def nii muy yàlla foo jublu yàlla fi yàlla jublu. am na solo. yàlla yow yow mi tax a mel nii yaa nga am bakk yaa nga am yow yàlla. yàlla yàlla nga am Porsche Cayenne yàlla yàlla nga am Ferrari yàlla yàlla nga am Jeep Cherokee yàlla yàlla nga am bac am institution informatique am prof anglais yàlla yàlla nga am lépp parce que moo tax ma mel ni tey sama àddina. Mhm. tey nit ku ne ni nga mel ak ki la ko def da nga koy ñaan. am naa droit di ñaanal suñu borom yàlla foo jub yàlla na fi yàlla jub yàlla. Mhm. yàlla yàlla nga am kër goom yaa yàlla am bak am institution yaa yàlla nga am yàlla nga am euh, Porsche Cayenne am Ferrari am Jeep. Euh, am vortu fagem mais yaa foo jub yàlla na fi yàlla jublu yaa yaa na la yàlla suturaal yaa am naa droit ñaanal suñu borom ñaanal yàlla te dañ koy ñaanal. Mm-hmm. am naa droit ñaanal suñu borom te am naa droit ñaanal ko yàlla dañ lay ñaanal yàlla. Mm-hmm. foo jub yàlla na fi yàlla jublu yàlla. am na solo am na solo ah euh, Liss fi may njëkkee fan yi la mooy problème bi Wally fan yi dafa mel ni dafa aalu fan yi dafa mel dafa rakaaj ci oto yi euh. <laughs> mel ni ko xabtalu ci oto yi. bi période la. période màggal yàlla boo ko ñaanoon ay kër dara koy may parce que période bii day excité. période bi mooy période màggal la gën a bëgg a tabax si ci àddam ak ay jabar ak yaayam màggal la gën a fonk ci àddam moo tax oto yi oto màggal la lu mayee ci màggal gi moom la parce que xolob lay mayee te xolob lay defee màggal màggal la am waaye màggal ak tabax si la am ci àddinaam màggal ak tabax si la am ci àddinaam màggal la man màggal ci laa nga présenté di ko ñaan xam naa damay may nit lu ko ñaan ci màggal bu mu la may na ci màggal ba nga foog nii la leen la màggal moo tax may ne dafa bëgg màggal période bii day excité waaye période bii day lu ko neex lay def ci àdduna xaalisam day yokk mayam day yokk otom day yokk léppam day yokk parce que période bii la bëgg ci àdduna am mhm. période bii mooy période muy période màggal mhm. te yaa ko gën di fekkee di ko gën a def di ko gën a ndamoo di ko kii période bii day excité muy période safar waaye di gën a tàgg ba màggal gi jeex ba bu màggal ba suba sa aadam day wàññeeku màggal nag bëgg waaye bu màggale ba ci suba sax da da koy jooy tëdd aalam jeex mais màggal moom du ko kafe caat na ak tabax ci moo tax yàlla di ko may lii mu am lii mu toog suñu borom di ko may moo tax bu ko kenn yàkkal na ko bàyyi mu def ay jëfam bu ko kenn xaj ak li muy maye bu ko kenn boloke na ko bàyyi nit ñi mu may ay mayem moo tax màggal la fonk màggal la bëgg moo tax moo tax tey jii bés bii lu ci may rek dagan na. Mhm. lu ci may rek dafa bëgg màggal màggal la bëgg léegi màgg waaye sax yàqatul màggal waaye da doon waaye ay trente ay xoola ah non ay cent cinquante millions di ko def man maa koy fekkee di ko def ci màggal barki alxuraanu karim. billahi wallahi di ko def. des fois am na màggal goo xam ne amul xaalis war na Seydou naam boobu la li ciy génn. boobu la exercice yi génn exercice rafet yi war na mu am ci ñaar billahi wallahi Samuel Fall moo ko jëndee woon ak ak ak kii ak euh, kii muy sama ndey euh, Samuel Fall ak ak xalifa Belgique ñoo demoon jëndi ko. Mhm. barki yonent bi mu wanteer oto yi wanteer bu gaaw jëm lépp mu def ko ci màggal yi. xam ne màggal dafa bëgg màggal. Mhm. moo tax lu am ci màggal lu muy def ci màggal du tey yàgg na koo def moo tax ba tey su borom di ko sutaal yal na ko yàlla gën a sutaal gën koo dooleel yàlla gën koo may jàmm gën koo may tan muy def lu baax yal na koo ekkali ci darajaay Seydina Muhammad mhm. nit ki bi def lu baax da nga wax kon mu mel ne Soxna soxna bu soxna Aida bu Cheikh Béthio day def lu baax mu mosoo ko gis mu puukaree ci lu ñàkk fayda soo ko gis mu dugg ci lu ñàkk fayda màggal ak taxaw ko ak ak bëgg Seexul Xaadim ak bëgg Serigne saa ak bëgg Cheikh Béthio muy sangam bi nit ki nit ki buy def lu baax nit ñi xam ko da koy wax. Mm-hmm. parce que mënul def lu baax te doo ko wax moto bi du yàq dara riina metti naa mm-hmm. moto bi du yàq dara isa nit buy def lu baax da nga koy war a def te dafa def lu baax soxna Aida muy soxna Aida mu Cheikh Béthio yal na ko yàlla gën a taxaw gën koo may doolem ji mu doole ci li may liggéey xale bu jigéen du ko gaaw liggéey te jigéen mënu ko liggéey ci àddinaam yor ay milaa di ko def ci ay nag kile mbott xar muus loo xalaat ci àddina son ay da koy berneel bu loo xalaat ci ñeen loo xalaat lu li am génne deret soxna Aida da koy def ci màggal kon nit buy def lii nañ ko ñaanal mu gën a am doole. am na solo man taalibe Serigne Babacar Sy la mais damaa man damaa naw ci li def ak ci li muy wax dama ko naw te boo ko soo koy nax doo ko naxee ci ay musique doo ko naxee ci Cheikh Béthio koy nax ak Serigne Saliou. am na solo mu mu ku baax ànd ak tamit ku jëm yooyu nu mu tudd ñi muy àndal jabaru Cheikh Béthio yi ñi muy àndal. Mm-hmm. xam naa fàtte naa seen tur sax. Mm-hmm. waaye ñu baax lañ daal. ñu ñu ñu ñu baax lañ. yal na leen yàlla gën a jubóole. amiin képp ku njabootu Cheikh Béthio yal na la yàlla gën a taxaw gën a tutal mm-hmm. képp ku taalibe Cheikh Béthio yal na la gën a yàlla tutal li may def ni yombul de. d'accord am na solo ah, ah, ba tey damay des ci oto yooyu noonu ñu gis Wally ah oto yi maye bari na benn polémique mosu fi am mais oto bii nii mu mujjee may suñu frère boobu di Louraas ah vraiment ah, mu jur ay polémique yu bari ba ma gis si kii di Adamo sax génn ni Wally may Louraas oto jar na ay di ko dawal di ko wax ba àdduna bi yëpp yëg ko te lu raas aussi da ko faa xaar. Adamo xam nga ni moom tubaab la bëgg tubaab lay sago waaye lay ndamoo lu wax rek dëgg la dafa nekk nit boo xam ne day wax li mu xam day wax li li mu ñor day wax li mu gis te li mu gis la Sénégal yëpp gis amaana dañ koo jëflantalu ak nit. jëflante ko ak ku baax jëflante ko koo xam ne day sax jëf jëflante ko xam ne ki tas àddina ki tas label ki tas àddina kooku lu mu wax da jàppee ni lii waxi dof lay wax mais loolu nit du ko wax ci àddina bu ko dawalee si quatorze mois du alalam alalu alalu waale la bu ko daw vingt ans du alalam alalu waale la mais nit da am sutura otom boobu ci ci nit la jógee nit jox ko est-ce que nit kooku wax na ko dawal na ko vingt ans. Mhm. nit da ngay am sutura. Mhm. waaye nag boo nekkee ci ab dëkk. defloo dëkk bi xamu ne dëkk dëkk nga bëgg a yàq dëkk bi lu la de lu la wax da ngay foog ne fubu la. Hmm. lu la wax day fubu la. la nit boo nekkee ci àddina boo nekkee ci àddina goreel ba dee. Hmm. nga ñàkk may goreel ba dee soo mënta goree nga yem nga téye sa laam xam fi nga war a waxee kii wax loolu du nit du nit du nit ku baax. Loraas mérite na lu am ci mérite na ko vingt ans te waale yónni ko lii muy wax waale waxuloo wax waale yëpp sutura caat na sa daal la baal ma. barke alxuraan moo tudd ci àddina mais des fois nga ànd ak koo xam ne day day day day fubu xam nga ñàkk ñàkk ñàkk dafa ñàkk ñàkk loo bëgg dafa metti ba dabu ko mhm. ñëwaat ko da ngay excité mhm. mi ngi mel ne nga naan nga naan sum-sum wala nga naan deg deñan doo xam fooy taxaw lu lu ne nga wax ci àddina ngay wax ba war a wax loo xam ne waroo ko wa mhm. xam nga loolu yëfi baa doolal la Oulass mérite na lu cànn te te da ka faa xaar am na ñoo xam ne xaaruñu ko fa fa muy métti dañu tiim di ñu xas di ñu wax lu ñaaw lu bon lu ne ñu waxoon ñu ko tey bés ñëw ñu defal la lii da ngaa mérite yan na na ko yàlla may ci waal yi mhm. da ngay xam lu baax mhm. na ko war naa mën a am oto mérite nag nga nekk ak bu perte kenn xamul wax kenn xamul looy def perte yàq sa vie kenn xamul looy def perte perte mën tawee ci loolu jóge ci lu baax dal ci loo xam ne tey amaana dafa araam mais nga dal ci di ci ne ñun ñi sax xam dañ cee bëgg a jóge waaye nga bàyyi lu baax ñu man soo mën soo mënoo jàng xasida barki yontu ci xasida laay soog ba ba génn àddina waaye nag des fois nag àdduna àdduna moo demee te ñun xam naa ne baaxul te xam naa ne baaxul te ñu ngi ci nekk te mënuñu ci dara benn action lañ am muy loolu mun mënuñ jóg gën mën man sama voix neex mënu ma lu maa jàng jàng tuy jàng mënu maa jàng li dama yàlla def waxi dafa moo tax ma kii boo nekkee ci am ba yàgg ci ñëpp xam la nga nekk ci ay mbir juddoo ci yaroo ñu naan kii tànkatu ki la bëcc na nga génn ci loolu dugg kon kooku lu mu wax rek bàyyi nañ ko noonu parce que du nit yal na yàlla def sutura ñu avancé man loolu daal oto bi na ko mooy waale man man la jox oto la jox oto bi nga xam te mm, mooy loolu oto bu ndaw oto bu mag te waale ba joxe ñëpp la joxe waale ko bi yow xam nga waale sax te léegi damay oto mag bi loolu oh, la ko joxoon de xam naa dañ ko changé rek oto mag bii nii ba xam naa waale jikkoom barki oto mag bi bu xoolee ba ci biir barki yàlla waale moom oto mag bi moo ko oto mag bi moo ko moomoon de. xa oh mooy yow ku mën tas label kay mën na tas oto oto day dara ku mën a tas label tas àddina te màggal gaa ngi ñoon incha allah bu ko bàyyee mu dugg dina tas màggal ki waaye màggal suñu nit tas ko du yomb parce que ba màggal di am fekk ko judduwul waaye ku mën a tas label bu ko bàyyee tuuti mu am tuuti ci ci ci affaire murid mën a tas màggal màggal Tuubaa heureusement ba mënu tas màggal parce que màggal daa rëy mm. heureusement aussi Louraas ñu gis ko non ah mais ku amul oto kay bu ñu ko mayee oto kay day day kontaan loolu laa jàpp loolu laa xale la loolu laa ñoo màggoon xale bu ndaw la te dafa am fula te dafa diñ ñaan na ko yàlla sutura wax yooyu dugg ci léeg waaye parce d' accord am na solo ah. ma ñëw ci li nga xamante ne nag mooy màggal gi ah euh, euh, Pawlish màggal gi euh, yàlla nañu yàlla def jàmm ak salaam ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm Pawlish ñu gis si màggal tuubaa ren ji daanaka daanaka daanaka dafa dafa dafa dafa gën a jéggi tayo ci matukaay yi nga xamante ni sëriñ bi jël na ko di sëriñ Mountakha teg ko ci loxo Baye Fall yi wàccaay màggal gi ak ak ak sart yi nii naka nga ko jàngatee. waxaatal parce que man sooy wax man say wax du ko dégg da ngay tiitaru ba doo wax sa wax du feeñ guy gi man guy gi la ba da wax ba kenn du gi son guy gi da wax dégg la parce que li nga wax kenn xamu ko da ngay ubbi sa gémmiñ nga mënoo tiitaru yow. d'accord mbaru wóor mbaru perte nga woon. da mosoo daan kenn. <laughs> jërëjëf jërëjëf ma ne. Mm, allez vas nga koy wax ci kaw. waaw ma ne. waaw Liss. Ah, màggal yàgg nañoo gis màggal di am. waaye màggalu ren gii. waaw ah. matukaay yi nga xamante ni ku tedd kii di Serigne Mountakha moom la jël teg ko ci loxo Baye faal yi. Ah. naka nga jàngatee matukaay yooyu mu jël. bala ñoo ñëw ci dem beeg xale jigéen yeeg ya ci seen matukaay yi nga xamante ni Serigne bi jël na ko teg ko ci loxo Baye Fall yi ci màggal gi. sëriñ bi yàgg naa jël ay matuwaayam matuwaay mu nekkul ba mu ba mu dalee jël matuwaayam ci lu baax du tey parce que màggal Cheikhul Khadim la màggal du lu ndaw màggal du caaxaan màggal du puukare màggal du mbeeraay yor-yor la bu yor-yor bi jeexee màggal gi jeex na waaye nit mooy def lu baax di def ay berneel avant màggal ba nii am na ñoo xam ñu ngi berneel. Mm-hmm. ñoom Seexul Xaadim moo la ñor te sax màggal dañ koy mën sax màggal dañ koy dolli parce que kuy liggéeyal Seexul Xaadim loo am def ko ci Sëñ Tuubaa loolu du pertement loolu dana investir mm-hmm. la koy delawaat sax màggal dañ koy am mm-hmm. am na ñoo xam ne ay mbàkke mbàkke sant ñu mbàkke sant ñu faal sant ñu jóob Seexul Xaadim moo la ñor Sëñ Tuubaa mais dañuy mel ne ay ay doom yu mbàkke parce que dañuy jël ay milliards di ko ci def ndeysaan am na ñu nekk mbàkke mbàkke yoo xam ne duñu génne seen ñaar dërëm ko def baal ma sama jabar bi may woo s'il te ah. xanaa xaw màggal gi màggal gi li màggal gi di am ay ay ay naan màggal gi bu amee ñu naan màggal gi kër gi toj na lii def nañ lii xoola xale ji ñu def du kenn du kenn koy def ñoom ñooy nekk ci Dakar di dund showbiz ñëw ci soirée di baal ñu leen di way di ñu génne seen alal dina te alal seen may yëpp du weesu deux cent mille cent mille la ñu maye ñu si jóot leen sant Mbàkke te sant ñu Mbàkke de noonu ñuy taxawaay Dakar Mbàkke Mbàkke de sant Dakar kooku ñu naan sëñ Mbàkke te sant ñu Mbàkke du ko taxawoo ci na ñoom ñooy tax màggal gi di xale jigéen def leen neex ñi nekk dakaar ci sóor bi di def leen neex dakaar di ñëw Dakar di def ñu naan Mbàkke sëñ bi Mbàkke sëñ ma kii nga ñëw ñu ñëw Touba def Touba boîte Touba du boîte màggal du caaxaan xale yi barki Seydouna Muhammad gis naa xale bu jigéen bu def ñetti valise barki yonenti yàlla Muhammad ñetti ñetti valise la def ñetti valise. chicha lubrifiant non non man dama lay wax man dama lay wax. rawal maa ngi lay dégg bu baax. te ñoom duñ sol tisi bu ñàkk fay de jas de la ñuy sol. léegi cest à ñoom tey bu nekkee couple jigéen ak jigéen jàpp ne ay giwin yu mag mag ñi ngi noonu bu leen kenn boole ci benn néeg dama wax lu amul parce que mënoo dem tubaa di yóbbaale xam ne mais nooy demee màggal màggal ni màgg réyee xam ne giwin a bon waaye lu bon a bon lu bon a bon ñooy demee tubaab xale jigéen léegi dañuy dem tubaab mel ne ko dem sorti te ñoom du dal fu ñaaw xool du doo gis dal nañ kër gu ñaaw doom ci ànd kër goom piscine nañuy dal kër goom teraanga kër étage clim bi lépp léegi ñoom seen activité mooy lan ñëw ñëw dem Touba nangu jëkkër te nangu jëkkër jaan bi ne ko dañu moom de nañ ko fa xote Touba ko Dakar lekk xaalis ba xaalis jeex te góoru Touba dafa complexe góoru Touba Touba gën a complexe xale yi te xale yi Dakar xamuñu dun dara benn boisson lay xam benn lay xam ceen àdduna benn boisson lay naan moom lay xam te xale yi Touba mun xam nañ ko sax mais duñ xam tur ma chérie s'il te plaît des ma Mouni Sow GGM nga foog ne loolu dafa rëy du dara Mouni Sow du dara naanaa la lingom ak Sprite du dara li xëy Touba léegi léegi waa Touba dañu foog ne lu rëy la GGM lañu li lañu naan Mouni Sow avec alcool te ñu foog ne alcool affaire góom la du dara loolu du dara te xamuñu ko ñoom dèjà waa Dakar li ñuy lekk sax xamuñu li ñuy naan sax xamuñu ko looy ndekkee defal ma euh, s'il te plaît dañuy changé seen voix bu ñëwee Touba dañu mel ne ñoom dëkkuñu Dakar te ñoom fii li ñuy lekk ba duñ ndékki parce que 6 heures la ñuy yeewu <laughs> buñ baale yee 6 heures lañ 6 heures la ñuy yeewu 6 heures jënd mbaxalu mbaxalu tuuti dama lañu def jattu jënd sebon wala ci kajaa jënd sebon ñëw lekk ko li buñ demee bu dugg Touba dañuy changé seen voix dégg nga yow miy sëy yàgg Touba màggee Touba juddoo Touba xam ni sëy mel nga nekk sa jëkkër juróom-benn at wala juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar heure bu màggal Touba jotee xale Touba dañuy est jigéen ñi sëy dañuy stressé. ndax lan. barke alxuraanu karim ndax xale yi màggal indiwu leen fa nangu jëkkëru jàmbur yéen fa indi. màggal mhm. dañuy sol 60 yére la sol 60 yére la xale yi di sol. Mhm. barke alxuraanu karim di imposer ci kër gi. di def lu leen neex ci biir kër gi kilim bi du fay. waaye sëñ sëñ Tuubaa ko liggéey foofu lépp fa am lekk bi du du taxaw sëñ sëñ Tuubaa ko liggéey mais xale yi ñëwuñu pour màggal dañuy ñëw pour yàq dañuy ñëw pour yàq màggal te màggal màggal sëñ Tuubaa yàq ko du noono xale yi ñoo gën a ndaw ci yàq ko mais léegi léegi xale yaa ngi soo bis lu leen ci màggal gi di def lu leen neex ci màggal dal nooy ñëwee dal dal dalu jàmbur noo fay ñëwee indi jigéen ak jigéen ñu ànd te ñaar ànd ay giwil lañ te ñooñu bokk même néeg ñooy président jox jox ñu néeg te ñoom ñaar bu ñëwee ci màggal duñu réglé duñu màggal rek yem ci barke alxuraanu karim neex ñooy te pour nga xam ne xeetu seen seen seen xeetu gi giwil xeetam bon ñoom ñaar ñooy ànd ñooy ànd Dakar dem ba Touba bokk même néeg ku ku ku mën a tas Dakar kay ci même néeg bu demee Touba mu libre am lekk ñu lekk ba suur te fii duñu lekk lekk ba suur dañuy gën a am envie def lu bon parce que ba suur rek nga gën te xoolal seeni sànq may wax Baye Fall may ni gën a ñaax jigéen ak jigéen bu ñu àndee yore saak dugg gédé wala ñaari baay faal wala sura bu bilee seen saak yi boo leen gisee marto duñu ay maçon duñu ay guy gi boo retardé dama dama énervé noppi naa guy gi tey ma wax la àddina tey. non man man kay tiit sax. kon màggal gi dem na am yóbbu am na am na yóbbu ay marto. ren dew ma de su ma demee dama lay wax parce que sama kaw gi la mais maa koy fi lay toog di ko gérer dafa may wat. li li ah ñoo bëgguñu lii. is est comprendre. yaa ngi comprendre. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. yaa ngi comprendre ah man. lii ma sol la. Aziz Thiam la sama xam mag la yaa ngi comprendre Aziz xool kii euh, dama màggal gi laa bëgg a taxaw mënu maa dem fi lay toog. waaw parce que su ma demee dama may wat mais dama lay wax tey. Baye Fall yi Baye Fall yi taxaw leen Gédé wala Sourang wala ñaari baay Fall walla Mbacke wala wala ci booru xam naa ne doon xam booru jumaa ja mais barke Seydouna Muhammad koo gi jigéen bu yore saak bu yore saak Baye Fall yi yéen dimbali ubbi leen bi ubbi leen saak bi soo la gisee toñaat wala nga gis tureel wala nga gis mbattu wala nga gis ruuxu ay ñaari jigéen ñu ànd wala juróom groupe jigéen ñu ànd ay giwil lañ ma duñu ay maçon ñu ay ruuxu ruuxu ñu kii duñu ay tapuse ñu ay marto boo gisee wala toñaat wala kubéeru frigo wala bant frigo jàpp leen ay giwil lañ c'est parce que noonu la ñuy defee rapport noonu la ñuy sëyee ñu ñëwuñu Touba rek pour ñëw rek màggal duñ ko def ci àddina parce que ñoom ñëpp ñuy ànd groupe ñu ànd jigéen ak jigéen jàppal ne te nag ma dimbali la nekk ñëwuñu pour liggéey ci màggal ma dimbali leen yéen ñii borom kër gi invité xale jigéen ñi ñëw bu kenn bàyyi jigéen ak jigéen tëdd séparé leen yóbbul kii gédé yóbbu kii ñaari Baay Faal waaye boo leen bàyyi ci kër gi dégg ko toj parce que ñoom ñëpp ay giwin lañ ñoom ñëpp ay giwin lañ Baay Faal intelligent leen intelligent leen bu ñuy ñëw dañuy mu tagalu te ku la ci dàqa moo dàq giwin ku la ci dàqa taq veer jàpp ne de na ba du xàmmee jumaa ja du xàmmee kaaba ko du xàmmee lenn day dem rek te te ku ku romb dem na maytu ko mu dugg foo xam ne war naa wax mën a mën naa dugg ci bërëb boo xam ne da ngay tiit parce que ñoom buñu ah taxis dañuy bu volee dañuy am fit fépp lay dugg yéen ñi bàyyi fàle intelligent ma xelal leen xam naa ne xamoo leen boole mooy per bu vert bi <laughs> orange rouge vert tem tem ñu ne la sama dama am dama am kii dama am li so loolu du métti boobu lu so kii dama am kii dama am migraine déedéet bu amee bu bopp bu vert bi kiwil la micro bi bu amee euh, kii bi bu rouge bi du garabu migraine garabu migraine day weex tàll day week te doom la da nga koy naan ngir jëmi rasulillahi te ngeen xool seen seen suufu tuñ yi dañ dañ ciy loolu ñu def sunit xaw ma noo tudd buuna man su may liggéey te dama lay fay danga may may mouchoir parce que may ngi ñàkk dugal may mouchoir s'il te plaît yaa ngi comprendre xale jigéen ñi ñëpp bu ñuy dem tubaa xoolee seen saag yi merci buuna xoolee seen saag yi prex xaaj bépp ay jiwil lañu waaye ku leen ànd ñaar ñaar xool leen seen saagi bu amee bool giwil la boo amee toñaat giwil lañ boo amee mbartu giwil nañ boo amee ruuxu giwil nañ boo amee bu bu amee bitéo de dañal bu jeex giwil nañ parce que seen rapport noonu lañ koy defee seen rapport da gën a métti ci àdduna lu ni seen àdduna lu ne na leen màggal tax a jóg d'accord yaa ngi koy wax léegi a ah? am na ñoo xam ne yaa ngi koy wax ne dañuy dem jënd ay ñetti valise Euh, Pawlish kuy dem euh, maggal yan matukaay nga war a nga yan ban comportement nga war a am. parce que màggal du yóbbu ay chicha ak man maa ngi koy doog a dégg. ay chicha lu ne la ñuy yóbbu mais loolu xam ku ne ko may foo Mbacke Mbacke nekk Dakar ñëw di taxawaaye Mbacke lañ sant sant ñu Mbacke invité invité xale yu Touba ne fii sama kër baay la fii sama kër maam la xale yi jigéen ñi ñëw def kër ga sorti ñoom kese ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo i màggal Touba moom mënu ñoo yàq màggal màggal màggal ñoom yàq seen màggal mun ta weesu nga jëlee fi xale Dakar complexe mun ta te xale Dakar bu ñu demee dañuy sali fois te nag ku la sàcc nga ne kii xale yaa dàq sàcc àdduna or dañ koy sàcc pirik dañ koy yóbbu xam lu nu fay bàyyi parce que bëgguñu affaire jigéen citien dañ koy téye jaarool ay ferloof dañ ko duñ ko sàcc poudre parce que bëgguñu daraay jigéen xaaj bépp ay giw lañ nooy demee Tuubaa indi ñetti valise jaaxal na ma de te duñu dal kër gu ñaaw lu ñu dugg kër gu ñaaw barki al kër gu rafet la ñuy dal te buñ dee kër gu rafet ñu ngi xool lu ñu naxee lu ñu naxee xale bu góor bi te xale yu góor tubaab ñoo gën a naïf dañoo ko complexe xale yi te xale yi Dakar duñ dara duñ dara duñu dara duñu dara ñoom si la def ñoom duñu dara buñ demee tubaab dañuy saay seen fois looy naan te wala ma mën a GGM mën a soo te loolu dara mën dara léegi bu nekkee xale tubaab xamuñu mën a soo dañu foog ne lu rëy la lu dara te mën a soo dara looy nekkee dafa ma saucisson te du dara loolu du dara yàlla moo la tere màggali. sama karaw gi dañ may wat. may wat Mbacke Touba Touba ku ma wat yàq nga ma. d' accord li ma mel nii koy wat ma watoo yàq de. d' accord waaw. Euh, Pawlish kontaan message bi am na solo parce que tamit lii c'est normal. xam naa ne ñu ko nag xam naa xale duñu ko dégg parce que ñu ngi may saako. mais Baye Fall yi mais Baye Fall tamit bu leen booy ña ma conseillé leen yéen it booy ne manqué manqué manqué manqué xale yi capable nañ capable boo xam ne mën na laa jox volet sax ne la tàngal la nga naan ko bàyyi leen ñu jàll <laughs> ngeen dem ci sédd naan toos sëñ bi rëy topp eh, bàyyi loolu intelligent leen barki xale yi Dakar ko danoo mu yeewu na yeewu boo xam ne mën nga leen naan sono ñu jox la benn volet defal la ko ci kaas nga naan cim ay bi sëñ bi lay topp eh, ñun rek lay topp ku ne yeewu leen ngeen muus xale bu lay jox garab ne leen baax na suur naa capable nañ kaal boo xam ne barki alxuraanu karim xale yi fi Dakar non mais ni ñu amee fi jàngal ma lay sonal ñu wóor na nga bébé s'il te plaît la koo xëj ne la bébé dangay naax dangay fàtte sama nga ne <laughs> ah dangay fii nga nekk màggal naanal jox la nga naan sa bopp bi nga naanal li uh, këru Fatick maa la nga naan ko nag suus ku ku romb ba yàgg nga naan ko toog su màggal ki lay toppoo ay jaay faay toujours ay kuuru faay fa màggal ku leen jox ku leen jox garab bu vert wala bu jaune wala bu rouge dóor leen ko jàppale ni volet kan la jàppale ni kiw ak suun ak li ñuy teg suus ana boo xam ne kon kon lii la. surtout si de li ngay dugal fii sa suufu tuñ xale bu fi ñëw xale bu fi yem neewi jàppal ne du jamut du soccet du amelu bañ teew na fi sunus teew na fi sunus ci fii ci suufu tuñ yi boo leen dóoree fii rek wala ngeen dóor kanam gi rek bu waddee rek jàppal ne la ak dañuy yóbbaale sunut sunus fi lañ ko teg seen fii di wax ak yow si xoolee fii rek fu seen fii bu saddee rek waaye faal yi waaye ba faal li ma leen conseillé sax du nga xam naa xoolal jigéenu Dakar ak góoru Dakar bu seen fii neewee rek jàppale loolu nekkul jéem ko naturel teg nañ ci sunus waaye teg fi suus intelligent leen ngeen muus bu leen kenn jox loolee i naan bu leen parce que xale yi préparé préparé boo xam ne ñi ngi ñëw pour jox leen ay volet te ku leen jox ku leen garab boobu mel pratiquement bañ leen jàppale dina leen bëgg a nelaw loo naan tous suba ci ci lay topp màggal gi doo xam sa màggal kañ la yow topp da ngay wax ba màggal gi jeex nga naan topp te boo wala nga jeexal